yàlla namm yàlla xam yàlla xam la mu namm lu ca xeemim la mu ëmb ci ñaari baat yooyu la mu ëmb ci ay maana yàllaa ko jagoo ak xamam xaa la mu jagoo miim ak la mu jagoo allahu aalamu bi muraadihi bi bur bi nee na wal kitaabi giñ naa ci téere bi di alquran almubiin almuzhiri tariqa alhuda wa ma yaxtaaju ilayhi min alshariati mooy bi nga xamante ni mooy aji leeral ji dëgg di di leeral yoonu njub ak lépp lool soxla soxla nañu ko ci wàllu sharia mooy téere bi mooy téere bi koy leeral yàlla nee na giñ naa ci alquran ne inna naka ñun yàlla jaalnaahu def nañu téere boobu liñ la wax yow muhammad quraanan muy alquran lu ñuy jàng te def ko ci làmmiñu arabiyan ci làmmiñu arab arabiyan ci làmmiñu la laallakum ndax la yéen waa màkka taaqiluuna ngeen man ko xellu man ko comprendre man ko dégg ñu ne waaw moom de alquran pour ñépp la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nga ko yónni ci ñépp yónni wu ko ci arab yi kese kon lan moo tax alquran nekk arab waaye ñoom ñooy njëkk a capté euh, risala naa muhammad te ñoom ay arab lañu wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi yàlla nee na musuma yebal aw ndaw lu dul ci làmmiñu ci làmmiñu mbooloo moomee arab euh, euh, euh, yonent boobee ci langue ba muy wax ña ma ko yónni ci ñoom langue boobu moom la ñuy wax su ko defee nag ñoom ñoo ko jot biñ ko jotee dégg ko biñ ko déggee tasaare ko biñ ko tasaaree mu àgg fépp bur bi nee na wa innahu giñ naa ni man yàlla ni moom alquran fii ummil kitaabi ma nga sax ca ndeyu téere yépp la day naa fa ñun cosaanu téere yépp la day naa fa ñun yenn boroom xam-xam yi ne lawxul mahfuz la ñii ne déedéet ummul kitaab yi mooy la yàlla féetewoo ak xamam keneen xamu ca dara moo tax mu ne fii ummil kitaabi la day naa moom alquran la aliyun aji kawe la mu sut téere yépp téere yépp ndax dafa ànd ak yeneen téere yi ci li ñu wax ci wéetal yàlla ci wàllu pas-pas waaye nag dëppook jamono ba àddunay tukki lépp lu jamono laaj mu indi question bu mu posé mu indi réponse am kon la aliyun moo kawe téere yépp moom alquran waaye xakimun alquran zu xikmatin baarixa waaw yàlla moo ko ràbb yàlla mi xam lépp moo tax dafa xereñ waaw dafa xereñ waaw lépp loo xamante ne jamono indi na ko boo ca déggee alquran dana la ca teg yoon wa nga xam ne moo gën a jaar yoon moo gën a jub inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwam moo tax suñ borom ne la aliyun téere la bu sut téere yépp sëpp leen tiim leen xakiimun téere bu xereñ la ci ñi muy répondre question yi léegi nag yéen waa Màkka ndax kàccoore gi ngeen kàccoore ak di bokkaaleeg yàlla tax na lànk bañ a gëm tax na ñu war a téye alquran ba duñ duñ ko wàccee duñ leen ko waare est-ce que loolu moo war a mën a am moo tax mu ne afa nadribu ndax dañuy téye afa nadribu ndax dañuy bàyyi téye an kum leen az zikra alquran wàccee ko ngir lan an kaw naka yéen xaw man ngeen nekk aw nit kese ñoo xamante ne musrafina da ngeen di ëppal ak di bokkaale yàlla déedéet a nadr nadribu duñ ko def duñ ko duñ ko def duñu bàyyi alquran boo ne daraba an kada wala adraba an kada bi ma maanaa tarakahu wamtanaa anhu ci la ngay déggee al idrab adraba al ummaalu anil amali bi maanaam ñoom ñu ngi ñi ngi grève nañu wëlif liggéey ak yooyu sun borom ne kon seen kàccoore gi ak seen jaamu xërëm yi ak lor gi ngeen lor yonent bi ak bañ a gëm yonent bi bañ a gëm yàlla sun borom nee na du tax ñu bañ a wàcce alquran moo tax mu ne afa nadribu ndax dañuy téye ankum wëlif leen azikra alquran xan téye safxan ak bàyyi ngir lan an kuntum ngir nekk gi ngeen nekk rek xaw man di aw nit ñoo xamante ni musrifiina da ngeen a nekk way bokkaale ñu kàccoore ñu ëppal yaa rasulallah wa kam baraana torop arsalna bu ñu yónnee min nabiin yonent fil awwalina ca xeet yu njëkk ya ñu xeet yu njëkk yi yobaloon naa ci ñoom ay yonent kon njëkkoo ci yonent yi waaye ñoom ñi itam jiituwuñ ci xeet yama yebal ci ñoom ay yonent waaye ñoom wamaa yaatihim nekkul woon bu dikkaleet leen min nabiin benn yonent ca xeet yu njëkk ya illaa kaanoon dara bu nekk nañu yastasiuna di yëjji di sabote to dégg nga bii te yonent boobee ma yebal ca ñoom comme ni nga xamante ne ñoom noonu la la waa Makka di sabote waaye la xewoon moo def alak naa ma alak ashadda ëpp ëppale minhum ci ñoom baqshan kattan ñoo xam ne ñoo ëpp kattan saw saw nit yi yow Seydina Muhammad moo tax wa madaa jiitu na ca kéemaan ya masalul awwalina melokaanu ñu xeet yu njëkk ya ca façon ba ma leen alakee man subhanahu wa taala ñoom dañoo weddi woon seeni yonent ma alak leen ñii weddi nañu la nañu xam ne dina leen alak ndax misaal mi yomb na nañu xool ña weddi woon na ma leen alakee kon ñi la weddi noonu rek laa leen di alakee kon nag wa mada jiitu na wi na masalul awwalina melakaanu alkande gu ñu ñu njëkk ña wala in saaltahum diñ neen yaa rasulallahi laaj nga man man anakan xalaqa moo bind asamawaati asamaan yi anakan moo bind wal arda ak suuf yi la yaqulunna daañu tontu la la yaqulunanna la yaqulunna daañu tontu la ne xalaqahunna rikk kay bind na leen al azizu ku tedd ka al alimu ku xam ka mi subhaanahu wa ndax kenn sañu la woote ne sa yàlla bind asamaan kenn sañu la woote sa yàlla bind suuf ndax sa yàlla joojee bañ ko deferee yàggul say maam bàyyiwuñ ko fi woon te asamaan ak suuf ñu ngi fi woon kon kay daañu tontu ne xalaqahunna al azizul alim kenn sañu la wax ne suñu yàlla yi ñoo bind mbindeef ni ndax yàlla ye ka leen defar mbindeef la te nit munta bind lu ko bind kon nag la yaxu lu yaqulunna xalaqahunna al azizu al alim sun borom ne al azizu al alim boobu allazi mooy buur ba nga xamante ni jaala moo defalat lakum ne leen al arda suuf mahdan muy berso xam nga xale munta defaral boppam fa muy tëdd doomu aadama yi yéen itam comme xale ngeen mun leen a war a defaral seen bopp fi ngeen di nekk di suuf yàlla nee na maa leen ko defaral avant ngeen di ñëw ngeen ñëw fekk suuf mu nekk mahdan mu ngeen ciy dox di ci toog di ci tëdd di doxi seeni soxla te fa tabaarakallaahu moom yàlla wa jaala mu defalat bindalat lakum ñeel leen defal leen fiihaa ci suuf subulan ay yoon la al laallakum ndax la yéen na ngeen mën a gindiku ci bu ngeen dee doxi seeni soxla ak bu ngeen dee voyager ni suuf amee ay yoon noonu lakk asamaan itam amee ay yoon da ngeen ko jàng ca kanam ca saari suuf ya wassamaa zaati l xubur yàlla giñ na ci asamaan asamaan yi boroomi yoon xool ba mu koy ci ñaata at est-ce que boobu avion am na ah waaw mi ngi noonu moo tax buur bi nee na kii def loolu ki bind asamaan ak suuf walla si mooy buur ba nga xamante ne nazzala moo wàcce maa am taw mina samaay mu tukkee ci wàlli asamaan waaye nag bii qadarin ci nattale suñ borom neen dama ko natt ba mu yem dama ko natt ba mu yem tolloog la ngeen di soxla ndax su ko doon wàccee mu ëpp da ngeen di lab ci biir su manqué ngeen soxla seen i gàncax am problème mu maral la ngeen soxla du ngeen ko am moo tax lépp yàlla nee na dama ko wàccee bi qadarin bi qadarin bu toogoon fukki fan di taw ba ñu séwét rek mu boobaa musiba am waaye suñu borom nee na li ma wàccee ci ndox dama ko wàccee bi qadarin moo tax mu ne fa ansharna ñu dundal bi bihi ca sababu taw ba baldatan suuf maytan bu bekkooroon suuf soo xam ne dafa bekkooroon waaw koŋ ci jamonoy noor ñu wàccee te taw mu daal di naat la nekkoon ca suuf ci ay jiw yépp génn sax suñ borom nee na kazalika naka noonu bu ma jëlaatee ruux yi delloo ko jëmm ya fu bàmmeel nekkoon dana jëmm dana fa génnaat kazalika tuxraju neef leen di génne yamal qiyaam ci seen bàmmeel ngeen dundal walazi buur ba nga walazi mooy buur ba nga xamante ne xalaqa moo bind al azwaaja xeet yi kullaha yépp mu bindal leen ko mboolem xeet yi wa jaala mu defalat lakum ñeel leen minal fulki tukkee ci xeeti gaal yi wala aami ak xeeti juri kër yi comme giléem maatar kabuuna lu ngeen di mën a war lu ngeen di mën a war bu dee ca géej ga gaal ya bu dee ci jéeri ji giléem yi waaye gis nga alquran dafa bàyyiwul benn bunt boo xamante ni ba àdduna tukki nit dina am xam-xam xam arab xam arab ba génnee ci benn benn benn njuumte wala benn loo xam ne dañ naan bu ko làkkee woon nii mu gën a jóg xool li mu wax maatarka bu na léegi bu ni woon maat bu jëloon gaal waxul maatarka bu na ndax maatarka bu na hu ci gaal mun munte nekk ndax gaal natarkabuna fii gaal dañ ciy dugg mais kenn du ko war natarkabuna fii rakiba fi safinati lañuy wax bu dee giléem matarkabuna alayha léegi nag te gaal mi ngi fi giléem a ngi fi mu ni matarkabuna yam ca xasafa la aid bi boo tuddee gaal ga ne fii boo tuddee giléem yéena alayha moo tax moom rek mooy làkk lii moo tax mu ne maatar ka bu na lool da ngeen war ko lool da ngeen war ko bu dee ca gàllee dangeen ngeen ca yéeg bu dee ca giléem ya da ngeen ko war maatar ka bu nga àggale ko nag yow nga ne man gàll laa soxla mun la fii nga ne ko man giléem ya laa soxla mu ne haa alay haa moo tax lii du làkku du làkku nit suñ borom ne li tas tawu ngir ngeen dem ba yemoo lam ji li taalil la wala boog mu nekk laam gi nekk li lil aaqiba ngeen mujj yemoo ba yéeg ala zuhurihi ca kaw giléem ya ngeen yemoo ca wala ca gaal ya bu ngeen demee ba yéeg ah ngeen xam ni nag jóge ngeen ci coonoy dox xam ngeen dox ni mu mettee ak ci dox ci tàngoor dox ci désert tey ngeen yéeg giléem mu wàññi leen seen coonay dox gaawal seen tukki wala ngeen yéeg ci géej mu mu wàññi leen seen coono dox gaawal leen ci seen tukki ah léegi nag su ma tazkuru la ca war mooy su ma tazkuru te bu ngeen fàttaliku nag ni'matal rabbikum xéewalu borom seen seen xéewalu borom izastawaytum ba ngeen yemoo alayhi ca kaw la ngeen war ah wa taqulu ngeen wax subhaana allazi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun hmm, loolu mooy ñaanu tukki soo waree dara subhaanallazi tudd naa seetlu buur ba nga xam ne sax xaramoo moo tàggatal lanaa ñeel ñu haza waruwaay bi haza lii bu dee giléem la ak na mu toll xale bu ndaw war ko fa tabaarakallaahu muy dox nga mën caa toog tranquille muy dem fa nga bëgg bu dee fas la kazalika bu dee mbaam la kazalika bu dee oto bi la kazalika bu dee waru avion bi la kazalika ka ko tàggatal ba nga nekk ci am jàmm muy gaaw a sa faya voyage noppal la ci coonoy dox kooku war nga sant buur boobu kon subhaanallazi tudd naa seetlu buur ba nga xamante ne sa xara tàggatal la naa ñel ñu haasa war waay bii ñun de wamaakun naa nekkuñu woon muqri nii na di am kattan di am kattanu tàggatal ko lëhoo ñel wa inna wér nekk ni ñun ah ilaa la mun na waaye dellu lañu ñu de walbati la ñu de ilaa rabbinaa jëm ci suñ boroom kon sun borom mi ngi lay wax ci biir voyage bi nga fàttali ko sa sa ne àdduna voyageur nga kese da ngay da ngaa de xam nga dangay dem voyagé jëm fa nga jëm ne salaamaaleykum ak say bagage xam naa boo yëg ay rap booy jaar aéroport xam naa amul lenn lu ci gën a noppale yore benn valise wala nga bañu yore bagage xam naa moom noppale na moom su ko defee nga dem voyager wàccee say bagage àgg fa nga dal ñu gàttandu la defaral la néeg baag yépp nga wàcc waaye da ngay toog ba mu yàgg rek nga ne wat kañ ngay ñibbi nga ne sama retour bi sàngam na ndax bañ nga bay jënd billet ñu bëree ba dañ jënd aller retour waaw <laughs> da ngay daal di yéegaat jàppal say bagage yéegi wàcc avion bi ñibbi kon nag yéen ci àdduna kay da ngeen a gàddu woon ñëw ñu ñu ñu ñu ñu leewu leen uuf leen tudd leen daañ leen leewaat tegaat leen ci ay jaag gàdduwaat leen dem suuli leen même voyage bi la da ñëw dangeen ngeen a gane rek waaw kon nee na ngeen bàyyi xel loolu moo tax danga ciy jàngee ni wa inna ila rabbina la munqalibuun yàgg yàgg dañuy delluwaat suñu borom yooyu voyage yu ndaw la ci biir chaque voyage bu bu mag bi nga voyagé ci àdduna suñ borom nee na wa jaalu ñoom yéeféeri màkk ndax dañ doon bëri lu ñuy wax di dëgtal yonent bi di bëri wax lu ñuy wax ni yàlla moom mënta ñàkk doom yàlla mun a nekk yàlla te amul dara waaye léegi moom yàlla moom moo tax mu ne wa jaalu ña ngay wutalat lëxoo ñeel yàlla juz am ab xaaj min ibaadi yi xaaj bi bàyyi ko ci moom min ibaadi yi bu tukkee ci jaamam ñi ndax seen xërëm yi dañoo wax ne xërëm yi dafa représenté malaaka yi ndax malaaka yi ay doom yu jigéen lañu ndax malaaka yi moom yàlla bindu leen waaye ay doom yu jigéen lañu ñeel yàlla moo tax kenn du leen gis comme kenn mënut a gis yàlla moo tax kenn mënut gis malaaka ay doom yu jigéen lañu waaw léegi ku leen jur ana seen yaay ku leen jur moo tax buur bi ne inna linsaana wér naka ni xeetu doomu aadama ji wax lii la kafurun weddaakonu xéewalu yàlla la weddaakonu wéetal yàlla la mu biinun zaahirul kufri bu di aji biir ji dee nga euh, kéeféer waa léegi mu ne yonent bi salaa salaam léegi léegi dialogue waxtaan leen laaj leen ndax ñoom ñoo gis malaaka yi xam ni duñ ay góor ay jigéen lañu laaj leen moo tax mu ne am ittaxasa ndax dafa wut moom yàlla mimma yaxluqu tukkee ci la mu bind banaatin ay doom yu jigéen ñeel boppam yéen wa asfaakum mu tànnal leen bil baniina ngeen jegoo doom yu góor yi te yéen doom yu jigéen ngeen di ko sikkal ci seen biir société bay gas di ko suul soxlawu leen ko wisa bushira ahaduhum bil unsee dalla wajuhu muswaddan wa huwa kazim ñoom wa isa bushira njéem bégaleef na ahaduhum kenn ci ñoom bi ma ca la nga xamante ni dara ba ma ngay defat masalan aw misaal ak nurale li rahmaani ñeel yàlla mooy am doom ju jigéen ñoom ku ko ci am zalla day mujj wajuhuhu kanamam ga muswaddan di ñëkk sa jabar ëmb sa soxna ëmb juróom-ñeenti weer ànd ak coono yi ëmb ga ànd ak mettitu ëmb ga mettitu matu ga mét fa tabarakallahu mettitu mucc ga nga xam ne kanam xajoon na ca mu ñëw di doom ju jigéen yow santoo yàlla néewoo sa soxna muñal mais dangay ngay jàq ku xool sa kanam mu ñëkk ndax lim la indil benn doom bu jigéen jàpp ni moom moo gaafu ba tax moo la indil doom bu jigéen sun borom ne déedéet mbir mi ci yéen la ci yéen la nisaaukum xarsun lakum waaw science indi na ko waaye fekk na problème bi alquran rek la woon na ko bu yàgg ndax dafa noon nisaaukum seeni soxna xarsum suufi mbay lañu lakum ñeel leen ñoom yoru yorewuñu jiwu yow ku góor gi ci yow la jiwu wi nekk kon nag fa atu dikkalat leen xarsatum seeni tool seeni suufi mbay an ne chiatum waaye nag waxat waqaddimu li anfusikum waqaddimu xayran li anfusikum mooy lu ñu mooy avant bànneex bi mooy jaamu yàlla gi waqaddimu jiital leen avant bànneex bi xayran li anfusikum wa qaddimu li anfusikum su ko defee nag tool ba boo ci defee dugub dugub ngay góob boo ci defee gerte gerte ngay déq boo ci defee ñebbe ñebbe ngay sëqaat kon nag fa tabaarakallaahu moo tax mu ni ah, zalla wajhu muswaddan di ñëkk soppeeku jàq wa moom moom kazimun mu fees dell ak njàqare suñ borom ni ndax ñoom ayajcaluuna lillahi ayajcaluuna lillahi istifham gi hamza inkaar la ah ndax dañuy dañuy defal yàlla loole koo xamante ne man yan man yunshau wala yunashau koo xamante ne des kay sosal muy màgg di màgg fil fil ci taar ndax ku ci am doom jigéen bi mu nekkee xale yaa ngi koy puudar yaa ngi koy pastel yaa ngi koy jëndal jaari nopp yaa ngi koy jëndal ci ay takkaay fa tabaarakalaw di ko wutal ay lu ne lépp di yokk taaram taaram taaram koo xam ne ci taar ci taaru la sosu teg ci wahuwa moom man jaa tax mu ne wahuwa moom waxul wahiya te ci jigéen lay wax maa man man jaa tax wahuwa moom xayru mu biin du mu ku ku mën a génne aw lay fil xisaami ci jamonoy xuloo loolu dafa nekk Eh, dénga am waaye nag am na ciy jigéen ñoo xam ni ñoo dàqal lay ñépp waaw ñoo xamante ni ñoo bari nay góor yu ñu ëpp xel bëri na góor yu ñu ëpp xel xanaa man naa leen jox benn misaal rek bu xew ci yonent bi sallallahu alayhi wa boo xam ne xew tuuti àdduna tukki ndax yonent bi sallallahu alayhi dafa jékki jékki ne gént na gént naa ñu dem màkk wër kaaba ga ba yeewee ko daf ko gént yàlla wan ko ko te gént yonent lan la wax yu la yàlla wan ko ko mais yàlla wanu ko dat bi moom rasulullah mu jàpp ne mbir mi léegi la ànd ak ànd ak saxaaba yépp ne leen ah dañu dem màkk fekk ñoom dañu leen a génne woon màkk daañu dem namm nañu kaaba ga dañu wër kaaba ga yaa ngi dégg dox suñ safaat def suñu omra ñoom ñëpp ñu daal di waaj fa tabaarakallaahu bu nekk ñu daal ñëw ba jege yéeféer yi ne leen du ngeen dugg fa tabaarakallaahu ñu waxtaan ba d'accord ci benn point mooy dangeen di dellu ñibbi Médine ba déwén ngeen ñëw kon déjà loolu ngañaay la kuñ génnewoon sa dëkk ba tey ñu ñu wax ne la bu déwénee nga ñëw kon am nga ndam yonent bi salaa salaam ne kon nañ dellu biñ ne nañ nañu dellu ah ñépp ñépp ñépp la seen xol nux nuxi ba ca Seydina Umar ibn Xattaab ñëw na ba ci yonent bi salaa salaam ne ko ndax ñun ñoo ngi ci dëgg yonent bi ne ko waaw mu ne ko ndax ñoom ñoo nekk ci lu dul dëgg yonent bi ne ko waaw mu ne ko pour pourquoi kon ñuy nangu ñi nekkul ci dëgg di ñu xañ ñu jëfandikoo sunug dëgg Aboubacar ne ko defal ndànk ab yonent bi yàlla ngay waxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di di ko déglu Omar ne ko ndax waxoo woon dañuy dugg màkka mu ne ko aha kay mu ne ko est-ce que wax naa leen ni ren lañuy dugg màkka mu ne ko déedéet yonent bi salaa salaam ne na ñépp yewweeku mooy nañu watu te lot seeni giléem te summi seen armal yi ñu dellu Médine yonent bi ne ayu bis def leen ko ñépp ne këj di xool yonent bi salaa salaam yonent bi ne yeeweeku leen dem leen ngeen yeeweeku watu loj seeni giléem ñépp ne teg di xool yonent bi yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ba mi trois fois kenn wuyuwu ko ah problème am na problème am na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ci xaymaam soxnaam su am xel buñ naan ummu salamata yonent bi ne man de yonent bi ne ko man de tiit naa ne alkande daa nar a wàcc ummu salamata ne ko yaa rasulallah dafa am loo xam ne ndigalal yàlla la mais dafa am noo xamante ni système ngay doxalee ndigalal yàlla boobu mu ne ko yaa rasulallah gis nga ñii dañoo découragé ndax namm gi ñu namm màkk ñii nekkul ci dëgg bëgg leen xaj xañ ñu dugg màkk looloo nekk ci seen xol yi metti leen ba tax na yow rek la ñu gëm yow lañu jaayanteel yow la topp xam nga nooy def dafa am foo xam ne barab boo xam ne dangay wax ñu def mais am na barab boo xam ne doo wax da ngay jëf ñu ñu def ba tey laajul wax jëf la laaj yow rasulaa génnal nga watu wal kile woo kilay wat mu wat la nga dem lot sa gileem te nga xool lan mooy xew yonent bi génn na ana ki may wat na ñëw wat ma watu dem lot gileemam saxaaba yépp dem watu lot seeni gileem ki régler problème boobu kan la kooku am na xel na xel am na xel ba ñuy dem di ñibbi ci la suratul fathi wàcc damay bañ a anticiper bi inna fatahna laka fathan mubinan ji wàcc yàlla indil ko détail nag laqad sadaqa allahu rasulahu ruya bil haqq la tadxulunna al masjid al harama insha allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la taxaafun waaye nag moom yàlla fa alima ma lam taalamu moom yàlla fa jaala min duni zalika yaani min qabli duxulikum makka fathan qariba yéen da ngeen a gëj màkk ñu ngi naan da ngeen a jeex ñu ngi daan yoru leen dara te am na koom-koom buy ñëw war ngeen ci jot mën a solo mën a jënd ay sérité avant ngeen fa min duni zalika fatan mooy xaybar su ko defee loolu jigéen la kon bi dafa nekk euh, euh, fa tabarakallahu loo xamante ni xaddiya ama la mooy à général lay doon waaye léeg-léeg nga fekk ci jigéen ñi ay jàmbaar ñu gën a jàmbaare góor ñoo xamante ñuy ëpp xel góor ñoo xam ñooy man sax ci diine góor moo tax buur bi ne hmm. wa jaalul malaayikata wa jaalu ñu ngi wutal ñu ngi def al malaayikata malaaka yi malaaka yan allazina ña nga xamante ne ñoom de hum ñoom ibaadu rahmaani jaami yàlla la ñoom malaaka yi ñoom ñu leen di def inaasan xeetu jigéen sun borom ne ashahidu ndax ñoom ñoo teewe xalqahum seenu bind ba ma leen di bind dama leen a woo woon ñu fekke leen xam ne jigéen laa leen def te buur bi waxoon ci ab gannaaw ne ma ashhadtuhum xalqa samaawaati wal ard wala xalqa anfusihim wa ma kuntu muttaxidal mudillina aduda yàlla nee na fekk loo wuuma leen bi may bind asamaan ak suuf fekk loowu ma leen ñoom sax bi ma leen di bind ñu teewee ko kon nag ashahidu ndax ñoo fekkee xalqahum yàlla nee na loolu ñu wax sa tukta bu def na note shahaadatoom seen seede bi li ñu wax ne malaaka yi sos googu ñu sos ne ay jigéen lañu yàlla nee na note naa ko te bu alaaxira wa yusaluna des na laaj leen ko ci alaaxira am na mbugal gu wàcc ci kaw loolu yemuñu ca waqaalu ña ngay wax naan layu teguwul fenn ñu ngi ñëw naa leen waaye yéen nee ngeen lu lu neex yàlla mu am ñu ne waaw ñu ne ah na neex yàlla ñu topp ko ñun kat bu neexoon yàlla ñu topp ko yàlla la neex kat ñu topp ñu ñu daal di jaamu seen xërëm yi comme nee ngeen lu neex yàlla mu am te xërëm yii yàlla la neex kon mu am fi jaamu gi leen di jaamu yàlla la neex ñu jaamu leen ñàkk gëm gi ñu leen ñàkk gëm yàlla la neex ñu ñàkk leen a gëm ah da ngay da ngay yéemu léegi léegi nit ne la. ah yow kat bàyyi li nga nekk bàyyi li ah mu ni ah bis heure bu ma ci yàlla génnee ma génn ci ne léegi pour pourquoi yàlla di ma duma ci loo xamante ni bi ma koy def moom la neex te pour pourtant doo laaj lu tax bi may jaamu yàlla def lu baax yàlla di ma ci pour quoi mu ma ciy fay te jëf gi moom la neex mënoon na ma cee bañ a fay yéggu leen ma de yow bi ngay topp yàlla yàlla di la xéewale mënoon nga wax ni pourtant mënoon na maa bañ a xéewale ndax topp gi moom la neex te yow booy def leneen lu la neex nga ni pourquoi mu ma ciy duma ndax def gi moom la neex nee na question bi pourquoi ña lu tax doo boo laajee bi doo laaj bële moo tax buur bi ne waqaalu mm, mm, ñoom ña ngay wax ne law shaa bu sooboon arrahmaanu yàlla maa abadnaahum duñ jaamu malaaka yi duñ jaamu xéram yi sun borom ne maa lahum déddi ñeel leen bi zalika ca joojalee wax min ilmin gennu xam in hum déet ñoom illaa yaxrusuna ndaree bu dañuy nar dañuy fen rek xarras mooy kazab naa naahum ndax dañ leen a jox ñoom yéeféeri màkk yooyu kitaaban téere min qablihi lu wàcc la jiitu wàccuk alquran téere boobu sant leen ne jaamu leen lu dul yàlla fa hum ñoom ba tax mu mustamsikuuna ñu ngoyaanu bii ca loolee loolu di amul ba li dëgg tey dëgg kay xaaloo nee nañu inna naka ñun wajat naa dañoo fekk aba ana suñuy bàyyi ak sunu maam ala ummatin ñu nekk ci kaw diina jii di jaamu xiram yii bàyyil ñu fi néegu xërëm yi te wa inna nekk ñun kat way dox lañu ala aseer yim topp seen i tànk na way topp way roy lañu gindiku lañu ci ñoom ñoom rek lañuy ñuy topp waaw ah. yàlla ne wa kadalika noonu maa arsalna mosuñoo yónni min qablika la la jiitu fii qaryatin cib dëkk min nazirin benn yonent bu leen di xupp ci safara illaa qaala ndare bu tontu na mutrafuha notable ya mutrafuha ñooy xéewlu ña ataraf mooy atanaumu mooy ña nga xamante ne ñooy bénéficié wu ci askan wa ci xéewal ci daraja ci wërsëg indi inna naka ñun bu leen wuyu yonent bi inna naka ñun wajat naa fekkoon nañu aba ana suñuy baay ak suñuy maam ala ummatin ñu nekk ci yoon wu leer wii di jaamu xërim yi wa inna naka ñun muqtaduuna way roy lañu way topp lañu ala asaar yi seen tànk ya seen njeexit ya loolu xanaa mooy mën daal nii laa fekkoon ñu koy defe nii laa fekkoon ñu koy waxe noonu laa koy defe noonu laa koy waxe léegi yow bu fekkee la nga fi fekk jaarul yoon nag naka nga war a def da ngay continuer topp loolu ah man daal li maam ñi daan def laay def ah duma ko dindi te yow doo solo ñi maam ñi daan solo doo lekk ñi maam ñi daan lekk lan moo tax bi jamono indee avion ak oto nga toppoo la maam ña daan topp mbaam lañ daan yéeg ak fas lu tax continuer woo ca nga ni jamono moo indi leneen mais nga ni itam jamono moo indi leeral ni maam ya dañoo sànk woon fañ tegoon seen tànk du foofu léegi bu bu demee ba leer ni fañ tegoon seen tànk du foofu est-ce que da ngay continuer di fa teg sa tànk doo ko fa teg loolu tax alquran ne leen yéen seeni maam ak seeni baay dañoo tege fu tegewul ndax liñ doon jaamu du dëgg léegi yàlla indi na yonent mu wan leen dëgg kon pour pourquoi ngeen di taassub a taassubu moo tax mu ni ndax dañuy def loolu buur bi ne xul wax leen yow muhammad ah ndax da ngeen di topp continuer di topp seeni baay ak seeni maam walaw jitukum donte andil naa leen bi ahdaa lu gën a jub mimma ca la nga xamante ne wajatum fekkoon ngeen yi ca loolee abaukum seen baay ak seen maam ya yonent bu ñëw loolu lay wax ab société waaye su ko defee xaalu ñu ni leen innaa nekk ñun daal lii gàtt te gàtt mooy gëmuñu leen indi naa nekk ñun dégg nga kaafiruuna ca kanam way weddi lañu bi ma ca la nga xamante ne ursiltum yónneef na leen bii ca loolee yonent bu ma yónni lii lañu koy wax kon yow rasulallah bu la waa Màkka nee ñun xërëm yi lañuy ñuy di jaamu gëmuñu la xamal ni yonent bu ne dégg na loolu kon fa la bëgg nga dégg loolu moo tax suñ borom ne ñoom buñ ko daan def fanta naa ñu daal di alak minum te ñoom ña weddi woon yonentee a jiitu fanzur xoolal kayfa kaana naka la nekkee aqibatul mukazibina mujjantelu way weddi ña seeni yonent tuddal ci téere bi yaa rasulallah mu andi la benn jëmm benn jëmm boo xamante ne nuroo nga ak moom kaa muy sa maam ja ibrahim kan mooy ibrahim ibrahima mooy ki nga xam ne amul benn diine benn diine bu ko bu ko bu ko fonkul bu dee yahud yi fonk nañu ko bu dee nasaraan yi fonk nañu ko kon yéen jullit ñi waxatuma ak yéen ndax wa qaalat ah, maa kaana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan muslima wa maa kaana min almushrikin yahud yi nee nañu ci ñoom la ibrahima bokk nasraan yi nee nañu ci ñoom la ibrahima bokk ñiy jaamu xéram di waa màkka ñoom itam nee nañu ci ñoom la ibrahima bokk suñ borom ne maakaana nekkul ibrahima yahudiyan ndax bi muy am yahud xewul wala nasraaniyan ndax bi muy ñëw nasaraan xewul walla walakin kaana xanifan musliman wa maa kaana min al mushrikina bokkul ci yéeféeri ndax ñoom dañuy jaamu xërëm te xoolal ibrahima ana lan la fi indi woon moo tax suñ borom ne war tuddal ci téere bi fàttalil yaa rasulallah is ba nga xamante ne xaala ma ngay wax ibrahimu ibrahim li abihi ñeel baayam ba azara wa qawmihi ak nitam ña muy mbooloo mam waa dëkkam ne leen inna nii naka man ibrahim bari un waxul bari un de bara un ku set wecci laa bara un ku deñ laa mi ma duj ci lépp loo xamante ne taabuduuna yéen a ngi koy jaamute du yàlla kon kooku jaamu ko ci xërëm yi bu ñu nee ibrahima la ñu àndal waxuñu dëgg ndax ibrahima lii la waxoon baayam ba ak aw nitam dañoo am fii lu ñu tuddee bari am fii lu ñu tuddee bara boo nee un danga koy jigéenal nga ni bari atun danga koy tasniya bari aani da koy jam u bu dee ca jam u góor ba bari uuna bu dee baraa nag baraa un kenn ka baraa un ñaar ña baraa un mbooloo ma baraa un góor ga baraa un jigéen ja baraa un moo tax mu ne inna ni naka man loolu mooy différence su kalimatu baraa ak bari waaye ñoo bokk lu ñuy firi inna ni naka man bara un ku deñ set wecc la mi ma taabuduna illa lazi ah ka nga xamante ne waaye ka nga xamante ne fatara nii daf ko deful muttasil fatara nii moomu bind muy subhaanahu wa taala fa innahu koo kee sa yahdiini dana gindi ma sunu borom nee na kalimatu tawxid boobee moom Ibrahima wa jaalaha mu def kàddu tawxid boobee bi ñuy déggee ci inni zahibun ila rabbi sa yahdiini kalimatan muy baat baqiyatan bu des fii aqibihi ci ay sëtam ay sëtam ñoom ñooy dem ba mu yàgg ñu fàtte ko ma wut yonent bu leen fàttali waaye ibrahim li mu fi bàyyi mooy kalimatu tawxid ah nga ne kalimatan ndax daraba lahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi samaa'i tuuti ukulaha kulla xiina bi izni rabbiha loolu la mooy kalimat laa ilaha illa allah loolu la fi ibrahima ba wa kalimatun biha kalaamun qad yu am hmm, wa kalimatun biha kalaamun qad yu am wala wa kalimatun biha kalaamun qad yu am moo tax kalimatun kàddu la boo xamante ne baaqiyatan fi aqibihi la allahum ndax leen ñoom waa màkka yarjiuna ñu mën a dellu jóge ci li ñu nekk bu ndax ñoom nee nañu ci diina ibrahim la ñu nekk te ibrahima lii la fi defoon suñ borom ne bal li dëgg tey dëgg mataatu dama xéewale haulaai yéeféer yii wa abaahum ak seeni baay ya ak seeni maam ya bañ gaawal ci ñoom mbugal xatta jaahum di leen xéewale di leen xéewale daraja di leen xéewale wërsëg di leen xéewale mbooloo di leen xéewale ak càmm ñépp fonk leen ndax dañ naan ñoom ñooy njabootu yàlla ndax ñoo dëkke dëkku bu yàlla ba ñoo nekk fa néegu yàlla ba nekk ma leen di xéewale ak seen i baay ak seen i maam xataa jaahum ba dikkalat leen alxaqu dëgg ga muy sayyiduna muhammad alxaqu dëgg ga muy alquran wa rasulun ak ndaw mu biinun bu ay mu muzhirun lahum al ahkaam al sharciya muy sayyiduna muhammad salaa sallam te wala maa ba nga xamante jaahum dikkal na leen alxaqu dëgg ga xa muy alquran qaalu dañoo wax ne haza alquran di sixruñ ak jabar la wala ma ba nga xamante ne jaahum dikkal na leen alxaqu dëgg ga muy sayduna muhammad dañoo wax ne qaalu dañoo wax haza kii saaxir jabarkat la te teg ci wa innaa naka ñun kaafiruna waaye wedd lañu bii ci moom loolu la ñu wax xeet yu njëkk yee loolu la ñu waxoon kon ñoom itam tànk ca tànk tànk ca tànk rek loolu rek la léegi nag ñu dem ba mu yàgg ñu indi beneen beneen xadiya mooy léegi amatuñu problème alquran léegi alquran dina nekk dégg yàlla moo ko wax yow yonent bi yàlla nga yàlla moo la yónni mais nag yàlla dafa juum ndax bu fekkoon ne yàlla day yónnee fii ci màkk am nañ fii jëmm joo xam ne moom la yàlla jox wërsëg wu yaat ba ñëppan ci gannaawam kàddoom mooy kàddu ñëpp yàlla bu bëggoon ñëpp topp ko ñëpp ñëpp ñëpp topp yonentam day yebal ki ñëpp topp ci dëkk bi muy kan muy alwalid ibnu mughira mooy sangu dëkk bi lan moo tax yàlla bi muy yónnee mu bàyyi fi sang yi yow di la yónnee muhammad te yow yoroo dara wala boog am nañu keneen koo xam ne ñëpp ñi ngi joobe jalooreem ci mbaaxam ci càngam ci alalam kuñ naan urwatu bnu mas'ud as-saqafi yi ñaar ñooñu kooku itam bu ko yàlla yónni woon duñ am problème ndax moom dèjà ñëpp ñu ci gannaawam ñu ngay wax ne lawlaa moo ana nu tee nuzila wàcceef haza al quran al quran jii ngay jàng yow muhammad ala rajulin ci jenn waay joo xamante ne azimin ju am daraja la azimin ku am càng la azimin ku am alal la minal xaryate yi tukkee ci ñaari dëkk yi di màkka ak sax ak ak taif ndax ñooy dëkk yi fi gën a rëy lan moo tax suñ borom ne waaw ñoom nañ seet li gën a tuuti muy wërsëg wërsëgu àdduna yàlla nee na man maa koy séddale maay jox ñii am maay jox ñii ñàkk maay jox ñii bërile maay jox ñii néewle man mii séddale seen wërsëg ndax du man mii itam may séddale sama yërmaane wala déet ñoom ñooy séddale seen bopp seen wërsëga déedéet kenn joxul sa bopp kenn xañul sa bopp yàlla mooy joxe mooy xañe mooy séddale nee na man mii séddale seen wërsëg nee na man itam may séddale yërmaane gi wàcc ci ñoom seet yonent bu ma neex ku ma neex ma jox ko sama ak sama sama yonent moo tax buur bi ne ahum ndax ñoom ñuy wax loolu si yaqsimuna ñooy séddale rahmata rabbika sa yërmande borom te muy ak nubuwa bokk ci yërmande ga te pourtant ñun nahnu ñun yàlla wan nuunu in azzama nafsahu aw in sharaka ah xasam naa ñooy séddale baynahum seen diggante maishatum seen dund gi fil xayaati ci dund gi maishatum seen dund gi fil xayaati ci dund gi al as ak dunyaa ga daal ji kees wala ju jegeen jeejeex maishatoom la ñuy dundee fil xayaat ci dund gi addun yaag bu jege ngay jeex wala ngay aji benn mu jóge ci addana at wala addunu bu ci ne addunyaa suñ borom ne war a ñu yëkkati ñun yàlla baadahum lenn ci ñoom ci sababu koom-koom fawqa baada ñu nekk ca kaw lenn darajaatin ay daraja wa rafaana ñu yëkkati itam baadahum lenn ca ñoom ca sababu ñàkk gañu ñàkk fawqa baadin ca kaw lenn darajaatin wa rafanaa baadahu fawqa baadin moom mubhama la mooy ku nekk yaa gën sa moroom ca la nga man te mënu ko déggu li may wax de xam nga yàlla nee na ñi ñàkk am na fu ñu gënee ñi am ñi am am na fu ñu gënee ñi ñàkk maa yëkkati ñi ñàkk ñàkk ga tax ñu dem di liggéeyi nangoo dem ci marché bi guddi jot ñépp di nelaw mu sedd guyi ñuy bale marché bi yow mi am est-ce que mën nga ko mënoo ko kon kookee loolu muy def mën na loo mënul wa rafanaa ba'dahum fawqa ba'din darajaat waaye yow mi yow mi yàlla jox koom-koom itam mooy mën nga koo fay moom mën na laa liggéeyal yow da ngay dawal sa oto ba mu yàgg nga paan li ngay am am alal ak li ngay mën a jën téeméer sa oto bi mënoo kaa dépanner kon mécanicien bi ñëw dépanne ko du sa morom moo la gën ca foofa nga ko soxlaa moo tax war a faanaa baadahum fawqa baadin darajaat bi ci kër gi nga jël ko yow yaa ngi nelaw moom mu jóg njël ñëw bale kër gi fobeere karo yi ak ni mu sedd ak ni mu mettee ak ni muy sëggee rawatina jamonoy sedd yow nga tëdd sa nekk taal sa cuuraay fa tabaarakallaahu kookee boo ne yaa ko gënit da nax sa bopp ah kon nag wa rafaanaa baadahum fawqa baadi darajaatin moo tax mag ñi ne ndombal ngëneel warul ndigg ñaari yoon ku la ni maa la gën nee ko ci ganwet ndombal ngëneel warul ndigg ñaari yoon ku la ni maa la gën nee ko ci ganwet moo tax mu ne war a faanaa baadahum fawqa baadin darajaat li yattaxisa ngir ne jàppee baaduhum lenn ci ñoom xëy na ñëwoom de baadal lenn ca yan ay surga sun borom nee na maa leen ko defal te wa rahmatu rabbika sa yërmande boroom muy nubbu wagi sa yërmande borom topp lim la sant wa rahmatu rabbika sa yërmande borom ëllëg nga texe tabbi aljana xayrun du moroom mimma la nga xamante ne yajmauna ña ngi koy dajale ci poñte fi àdduna ba jàpp ni man yàlla ci wàllu àdduna lay xool ba fa war a teg sama nubbuwa déedéet suñ borom ni pour wax la ni wërsëgu àdduna du dara fi man jotewul ak dara ci sama tànn jotewul dara ak samay may jotewul dara ci nekk waliyu jotewul dara ci nekk yonent jotewul ak dara ci jege ma mooy bu ma bu ma bu bu ma bu dul wonte bu dul wonte bañ gi ma bañ nit ñi gis ñi nekk ñi nga xamante ne seen néeg yi seen néeg yi dafa nekk ñu xaddee ko xaalis or bunt yi nekk xaalis or lal yi nekk xaalis or mu nekk ay étage su ma bañul woon loolu di jax-jaxal jullit ñi ba ñu bàyyi fi diina ji dem toppi loolu kon nee na ñi ma weddi àgg naa ci pour wax leen ne àdduna du dara ñoom ñépp ma defal leen duñ am tabaxu ciment mais tabaxu or ak xaalis la am ànd ak loolu lépp du doon tus ci ci ci ko am bu faatoo fàtte lépp bu faatoo rek mu jeex moo tax mu ne walaw laa bu dul woonte an yakuna bu dul woonte bañ nit ñi di xeemeem la ñële am ragal an na bu nekkat annaasu nit ñi ummatan diw xeet waahidatan wu di wenn wu dajaloo ci weddi yàlla kon la jaal naa dañu def dañu defal li ma ñeel képp koo xam ne yakfuru weddina bi rahmaani yàlla ma defal leen li buyutihim muy badal ca man ja li buyutihim badal la ca man ja li buyutihim ñeel seen néeg ya seen néeg ya li man ja li buyutihim seen néeg ya ma defal leen saqfan muy ay téeg xam ngeen téeg mooy li la tiim ah mooy ci néeg bi hmm? plafond bi moom la olof naan téeg mooy ñu xadd xadd bi ñu xadd dégg nga ñu euh, téeg bi min fiddatin muy xeetu xaalis dafa leen wa maarija ay escalier yoo xamante ni ci xeetu xaalis yoo xamante ni yazharuna daañu yéege aleyha ca kaw téeg ya mooy ca kaw étage ya ma defal leen wali buyutim ñeel seen néeg ya abwaaban mu nekk ay bunt ci xeetu xaalis wa jaal ma defal leen sururan itam seen sururan seen lal ya jëm u sariir seen lal ya mu nekk xeetu xaalis yoo xamante ne na dañu soonu alayha ci kawam wa zuxrafan ak wurus sun borom ne su ko defee pour ñu xam ni wa in kullu zalika lamma mataawul xayaati dunia wala wa in kullu zalika lama mataawul xayaati dunia bu si ñuy jàng nañu suñ borom nee na bu dul woon bu dul woon ak nit ñi di xeemeem ragal bañ nit ñi xeemeem ak kéeféer kon nee na yéeféer ngir li ñu am ci ay xéewali àdduna kon yéeféer yi dina leen defal lii ma tudd pour ñu xam ne loolu dara ci àdduna waa léegi xanaa am na looy laaj nga ni waaw comme bu defalee loolu yéeféer yi jullit ñépp ma ne xeemee ma nekk yéeféer kon kay amoon na lu gën a gaaw mooy ana woon lu tee yàlla defal jullit ñi loolu ba nit ñépp xeemee ma nekk jullit nekk ci njullit gi wala déet mais laajal beneen côté bi xel daf koy laaj waaye bu ko xel laajee bu boobaa nga tontu ko ci ne yàlla soxlawul jëmm xol la soxla bu boobaa ñiy ñëw ci diine indiwuñ seen xol mais seen jëmm la ñuy ñëw dañuy nekk naafeq <laughs> wala déet ndax dañuy gëm yàlla boo boobaa mooy est-ce que dañoo gëm yàlla ngir jaamu yàlla bëgg yàlla déet dañuy ñëw yàlla ngir étage yu wurus yooyu loolu la itam day am kon boobaa yàlla bëggul nit ñi nekk naafeq ba tey du dëgg. Hmm. iza jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yaalamu innaka la rasul wallahu yashhadu inna almunafiqina la kaazibuna bi itiqaadihim moo tax buur bi nee na in kullu boo defee in ji boo defee eh, in ji ñi ngi koy firee ca lammaa ja dañuy xool lammaa ji ndax da nga ko shidda lammaa nga jàng wala lama soo jàngee lammaa kon in ji day nekk naafiya kon da nga naan wa in kullu zalika déet loole ñu tudd lépp lamma bi maanaa illa mataawul xayaati dunia lu dul yóbbalu àdduna bu jege njee jeex gi kese kese day jeex rek nga ba ko fi da dem rek ba ko fi bu fekkee danga def lama amul shidda dangay wax ne kon indi mu xafafa min a saqila la ah wa xufifat inna fa qalla al amalu wa talzamu laamu isa ma tuhmalu bu boobaa da ngay wax ni in nekk luy mbir te mbir kullu zalika lum loole ñu tudd lépp la dafay nekk laam alfaariqa bayna in an naafiya wa in wa almuxafafa min asaqila kon ngay wax ne in ah déet loo in nekk luy mbir te mbir kullu zalika loolee lépp la mataaul xayaati dunya maa ji nekk zaida doo ko firi la mataaul xayaati dunya mooy yóbbalu dund gu jégéen gee jeex wala dund gu gees gi kese lay doon suñ borom nekkoon wal axiratu alaxira di aljana ah inda rabbika lil muttaqina ñeel na way ragal ne yàlla te foofoo gën foofu du jeex yow ma fay xéewlu doo jeex xéewal ga du jeex sun borom ne wa man képp koo xamante ne yaasu du mooyu na dëddu an zikri rahmaani walif alquraani yàlla ji nu qayyit dañu tàggatal lehoo ñeel ko seytaanan ab seytaane boo xamante ne fa huwa moom seytaane ba nekk xariinu dig lëkkaloo guddul tàqalikoog lahoo moo lahoo ñeel ko waaw su defee dañoo wax ne sababu nuzul bi ibnu munzir génnee na jëlee ci xataada ñu ne walid ibnu mughira bi nga xamante ni nee na muhammad waxul dëgg ndax alquran ji suñ ko doon wàccee ci man lañ koy wàccee wala ñu wàccee ko ci ibnu mas'ud as-saqafi yi yàlla wàccee loolu waaye itam ñoom ñu basa dajaloo ñoom ñépp ñu ni léegi nan la ñuy def mooy ñi gëm muhammad kenn ku ne nañ wut kenn ku la topp koo xamante ne li olof di wax yéy sa nopp mooy koo xam ne dina wax ak yow ba génnee la ci li muhammad nekk kenn ku ne mooy ni ñu toll nañu mbooloo mu ni toll kenn ku ne ñu wut kenn ku ko topp subaak ngoon di ko wax lii waa ji wax du dëgg naka ñu dajaloo daldi def loolu su ko defee nag ñu jël talxa ñu boole abu bakar siddiq radiyallahu anhu bi mu ñëwee mu ne Aboubacar waa man dama laaj sa waa ji ci lan lay woote yow lan nga lan nga bëgg ma def ci lan nga may woo lan lay nekk Aboubacar ne ko yow lan moo tax nga topp ma démb ba tey lan nga bëgg ma def ko Talha ne ko damaa bëgg nga woo nga nga jaamu ji laata rek te bàyyi sa waaj ji ngi lay dig loo xamul rek di lekk sa xaalis bi rek ak Uzza Aboubacar ne lan mooy laata kan mooy laata ak lan mooy laata. mu ne ko laata talxa ne ko laata mooy suñ boroom mu ne ko lan mooy uzza mu ne ko uzza doomu yàlla la doomu yàlla bu jigéen la abu aboubacar siddiq ne ko waaw comme doomu yàlla la kan mooy yaayam ndax wax nga ma baayam kan mooy yaayam ah talxa na teeg daal di ne ah dem ci gaayam ne leen man kat dañ maa posé question ba ma mënta tontu de tontu leen ma Aboubacar mi nee na nee na comme Oustaz man li ma fi fekk mooy doomu yàlla la waaw mais nag man yaayam moom ma ko xalaat léegi kan mooy yaayam ñépp na teg mu ne leen man daal maa nga ak Boubacar ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yéen nekku leen ci dëgg man ànd naa ak Aboubacar moom nañ ko boolee lool pour mu génnee ko ci li mu nekk far fekk na Aboubacar waaw moo tax buur bi nee na ñi seytaane topp rek mooy ñi nga xamante ne nangu ñoo gëm alquran wa innahum naka seytaane ya dafa topp maana seytaane moo tax mu ne wa innahum ba mu ne fa huwa lahu qarin fa huwa ji dafa topp lafzu seytaane bi la yasuddunahum dañuy dëdduloo ña nga xamante ni dañoo lànk bañ a gëm alquran anis sabili walif yoonu dëgg te yoonu jub dañuy wàccu yoon fu ñu mën ti nekk am nga wàcc yoon am na bu am na ci bu baax mooy xam ni wàcc nga yoon mën nga am chance yàlla tegaat la ci yoon waaye wàcc yoon ba pare jàpp ni yaa tege ci kaw yoon wi ah yow da deesul amati ci yow yaakaar moo tax mu ne ñoom nag dañoo wàcc yoon jàpp ni ñoo tege ci kaw yoon loo tax mu ne anis sabil mooy dañ ba pare wa yaxsabuuna wala wa yaxsibuuna ñu am na ñuy jàng wa yaxsibuuna am ñuy jàng wa yaxsabuuna xasiba yaxsabu qiyaas yaxsibu shaaz muy samaa ba boo ci def rek baax na wajhaani fii min axsib ma wa xirta an im ba ista awli yabis wa hila ma ngi koy wax ci laay mi yeba moo tax yaxsabuuna dañoo jort ni annahum naka ñoom muhtaduna way ginduku la mu topp maanaa man ja man ja man ja ca wa man yaasu dafa topp maanaa ja moo tax mu ne wa na annahum muhtadun suñ borom nee na nga tege ci yoon te yoon wa du yoon wa nga jàpp ni moo yoon wa ba àgg ca kàmb ga looloo leen dal moo tax mu ne xataa isa jaana ba dikkalat ñu moom moomee nga xam ne dafa dëddu alquran mel na ku bémpéen ci alxuraan su ko defee nag xaala mu soog a gis dëgg gi ne hmm, xaala mu soog a wax lahoo ñeel seytaane ba ne ko yaa tax bay nii wa bay nag yàllante woon nekk sama diggante ak yow seytaane bii nga xamante ni yow laa toppoon bu dal mushri mashriqayn sorik penku ak sow sorik penku ak sow dafa am loolu la borom arab yi defee ak taglib mooy dañuy jël ñaar comme al ak al ñu tuddee ko al comme ni ni ñuy tuddee jël aboubacar as-siddiq ak omar al faruq radiallahu anhuma ñu ni leen omaraani lan moo tax ñu def taxlib parce que seydina aboubacar ñaari at ak ñaari weer la def ci xilaafa gi seydina omar def na treize ans et quelques ci mois ci ci xilaafa gi kon moo gën a yàgg ci xilaafa gi boo nee omaraani ñu xam ne seyd seydina omar ngay wax ak aboubacar waaw su ko defee nag mu ni dañ ko bëri na ci luñ koy def bëri na ci luñ koy def moo tax mashriqayni penku ak saw ak sow inna al jadidayni iza mastawlaya ala jadidin addina yahudil bila mi ngi noonu moo tax mu ni wa innahum la yasuddunahum an sabila wa yaxsabuuna annahum muhtadun xata iza jaana qaala yaa layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayni suñ borom moo tax mu ne fa bi sa aka bon alqariinu alqariinu lëkkaloo bi te muy yow moom yéeféer bi mooy wax loolu mu ne ko àndandoo bi yées ci àndandoo yi mooy yow te pourtant mu ngi kay mu ngi kay mi ngi ànd ak moom ci àdduna de waaye alaaxira dana wax ni àndandoo bi mooy moo bonte muy yow almaxsuusa bi zann mooy ant suñ borom nee na wala ñeen faakum alyawma id zalamtum annakum fi ladabi mustarikuna laaye boobu dañuy seet ndax annakum ja moom lañuy taawil masdar as annakum jooju mooy faailu yanfaakum su fekkee mooy faail ba dañ naan wala yanfaakum di jëriñ leen mukk du jëriñ leen mukk alyawma te yawma alqiyaam is ba nga xamante ne zalamtum doon ngeen tooñ mu biir tey ne yéen ay tooñ ngeen ni annakum mooy du leen jëriñ ci ne annakum naka yéen mustarikuuna way bokkaale ngeen yéen ak ñi ngeen doon topp fil azabi ci mbugal mi ndax dañuy wax ne soo nekkee ci mettit wéetee mettit ba mettit bi day gëna a metti waaye boo nekkee ci mettit ñépp nekk ca mettit woowa nga ànd ak ñoom mettit wa day oyof suñ borom ne bokk gi ngeen bokk nekk ca safara di lakk àndandoo googu du oyofal du leen jëriñ ci oyofal lakk ngeen di lakk ca safara ma dégg mooy bokk gi ngeen di bokk nekk ci safara yéen ñëpp ngi wax ngeen di waxandoo wuy sama ndey yéen ñëpp ngeen naan uhu bokk googu ngeen di bokk du tax mu oyof ci yéen moo tax mu ne wala wala ñeen faakum di jëriñ leen al yawma tey yawmal qiyaam iz zalamtum ne annakum naka yéen mustarikuna fil adaabi sun borom ne yaa rasulallah afa anta ndax yow tusmi u yaa mën a déggal dégtal kàddu gi yàlla asumma way tëx a summa way tëx jamu asam ak sama ah ñoom dañoo tëx aw tëx di wala yaa mën a gindi al umya way silmax déedéet ñoom di jàkkaarloo yow te gisuñu dëgg ñoo si ñu silmaxaayam di dégg kàddu dëgg muy dugg ci seen nopp te nanguwuñ caa jariñu ñoo ko tëxayam yaay mën a gindi ku silmaxa wa man ak koo xamante ne kaana nekk na fii dalaa leen ci te wàccu yoon mu biinin gul biir bu leer nañ xam nga lan ma xew dinaa leen mbugal mbugal gi moom benn nga teg ci sa bët allaaxira ndax fekke woo bi ma leen di mbugal ci àdduna wala bokk nga fekke ma mbugal leen ci àdduna fa imma fa in la woon acharte ya ak ma fa imma nazhabanna ndéem yóbbu nañu bi ci yow mooy ñu matal sa dund la njëkk ñu leen di mbugal fa innaa naka ñun yàlla muntaqimuuna way mbugal la ñu minhum te ñoom ca àllaaxira nga teg ci sa bët aw nuriyan naka wala ñu war la ci sa dund allazi la nga xamante ne wa atnaahum tëkkoo naa leen ko ci mbugal fa innaa naka ñun yàlla muqtadiruuna way attan lañu alayhim ci mbugal leen ñoom de te def loolu fastamsik rek na nga téyee yaa rasulallah billazi ca laalaa la nga xamante ni wuxiya wax yof na ko ilayka jëme ko ca muy alquran mooy ci téye ko te xam ne mooy dëgg ndax na la wóor ni innaka wér na ni yow ala siraatin yaa ngi tege ci yoon mustaqimi wu nu coow woo xamante ni mooy yoon wa àgg fa yàlla wa innahu naka alquran la zikrun tedd nga la nin naka alquran la la wa ak waare la laka ñeel la du yow kese de wala qawmika ak saw nit ndax amaana làngu arab bu alquran wàccu woon ci ñoom kon langue bi far na yeneen làng yam jamonoon teeloon far waaye alquran tax na ba àdduna tukki arab dafay sax ndax alquran dafay sax ndax ci arab la wàcc kon kay la zikrun laka wa li te nag bu yamal qiyaame wa sawfa tusaluuna salxat ne leen laaj ana xaqu alquran ana nan ngeen ko jo doon ko joon jooxee buur bi nee na wasal man arsalna min qablika min rusulina boroom xam-xam yi wax nañu ci laaye jooju lu bëree bari wasal laajal yaa rasulallah man arsalna ni ñu yónni woon ci yonent min qablika la la jiitu wala boog war wasal laajal man ña nga xamante ne arsalna yónni nañu ko min qabla la ko jiitu min rusulina ci suñuy ndaw laaj leen laaj leen ñu ni waaw dafa dem ci xaqiqaam wala demul ci xaqiqaam laaj leen ajaal naa ndax ñun yàlla dañoo def aalihatan ay yàlla min duni rahmaan yu bokkul ak rahmaan yoo xamante ni na dañ koy jaamu laaj leen ndax yonent yooyee mosoon naa leen kaa sant ne leen wut naa yeneen yàlla yu dul man laaj leen ko ñu ne bu fekkee dafa dem ci xaqiqaam ma nga amee ci al laylatul misra laylatul isra wal mi'raj ah mooy ba nga xamante ni yàlla dekkal na yonent yépp sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam jiite leen ca guddi gi rañaan ga def xutbaam gu mag googu ne laaj ne leen ne leen yàlla nee na ma laaj leen ndax amoon na ci kaw suuf lenn lu ñuy jaamu lool yàlla moo santaane ñu jaam ko kudul moom ñoom ñépp ñu ne ko déedéet te yow yaay sunu sang yaay yonent bu mujjee ñëw waaw bu fekkee dafa dem ci xaqiqam foofu la moo tax da gis ñu ni saar yu màkk la ba mu des laay ji waaye itam même bu fekkee ne laay ji itam moo tee ñu wax loolu ndax loolu itam al isra wal miraaj mi ngi amee woon ba yonent bi salaa sallam ca màkk ba fii zakkin qad xalat min chehri mawlidihi min an nubuwati amal xubbi lil qudami wa qiila fi rajabin fi dalika al amalul aana salaamu ala al muxtaari zil qadami asra bihi llaahu tashrifan li miknatihi xatta raa ma raa min aayihi ljusumi waaw kon nag loolu itam ma nga xewoon màkk ma nga xewoon màkk wala boog ñu ni kon dafa deme ci ah xutbakat bi xutba rek di la wax di la wax ne la laajal waaye waxu nga laaj daf lay wax ne waarul ci li ngay laaj mu ne la laajal asamaan li ci nekk ci biddéew kan moo ko bind laajal suuf li muy génnee ci gàncax kan moo ko fi def loolu wax kat dina la ko wax waaye waxu la nga naan nga dem ca suuf wala naan asamaan eey laaj naa la lan moo nekk ci biddéew ci yow déedéet dafa laa bëgg wax ne waaroo ca moto tax borom xam-xam yi wax nañ ci yi ñu ciy wax moo tax buur bi nee na bu leen jaaxle ci diggante kuy dund ak ku faatu di daje bu leen jaaxle ci diggante kuy dund ak ku faatu di daje hmm, waaw waaw ndegam seeni ruux ngi daje daje mën na am moo tax mu ne wasal laajal man arsalna min qablika min rusulina ajaalna min duni rahmani alihatan yubadun amul moo tax mu ne wala qad wallaay teg dëgg arsalna yónni bi ayatina mu ànd ak suñuy kéemaan juróom-ñeenti kéemaan ya ila firawna yebal ko ca buur bu boo boobee wut woo teg yàlla muy firawna wa malaihi ak mboola mam ma muy nitam ne fa qaala moom yonte yàlla Moussa ne leen inni naka man kat rasulu rabbil na ndawal borom bindee fii la ñu ne ko lan mooy sa preuve falamma ba nga xamante ne jaahum andil na leen bi ayatina suñuy kéemaan yuy tegtale ak rusalaam preuve buy wone ne maa ko yónni isaan am kon ci mbetteel hum ñoom yadhakuna ña ngay ña ngay ña ngay ña ngay reetaan di kekkatu di kekkatu min ha ci moom di ko reetaan di ko saboté c'était et pourtant wa ma nurihim wanuñu leen min ayatin benn kéemaan illaa hiya ndaree kéemaan boobee day mel na ci ñuy jàkkaarloog moom akbaru moo gën a rëy akbaru moo gën a leer akbaru moo moo gën a moo gën a yéema min waxtihaa ba mu lëkk lool mooy bëkk a jiitu sun borom nee na kéemaan yooyu yëpp weddi nañu ko sun borom nee na wa axasnaahum ma mbugal leen bil azabi ci mbugal mooy andil leen ay natt mbugale àdduna ay bekkoor ay feebar andil leen ay ay ndox yu ñuy labe fa tabarak ba ci seenu loos andil leen ay deret andil leen ay njéeréer yépp la allahum ndax leen ñoom yépp di ona ñu mën a dellu wa jóge ca kéeféer ga te wéetali yàlla waaye xam nga ba metti de dikkee bekkoor ba metti nañ xool waxtaan wi waqaalu ñu ñëw ne kan la ñuy waxal Muusa la ñuy wax ba ñu gisee mbugal ma ne ko yaa ayuha saaxiru eey yow njabarkat bu mag bi yonent yàlla Muusa la ñuy wax ndax li mu indi dafa yéeme seen jabarkat yi mënuñu ko kon nag moo tudd kan mooy assaaxiru mooy njabarkat ba mag bi ey boroom xam-xam bu réy yow boroom xet xel mu mi léegi nag ñun ñoo ngi ciy problème uddu ñaanal wool xettalikul lanaa pour ñun xettalikul ci kan rabbaka waxuñu rabbanaa de rabbanaa de déedéet rabbaka sa borom bi maa ci la nga xamante ne ahida wala rante na ko dig na ko inde ko fi yow ci ne boo bu ñu gëmee bu ñu gëmee mbugal mi wàcc bekkoor bi jeex natt bi ñu nekk jeex loolu la wólarante yow léegi ñaanal ñu ko ci loole ndax indi naa nekk ñun bu liy teggi ko la muhtaduna daañu gindi ko topp la ah loolu la ñuy wax de waaw natt bi ñu nekk bis bu jeexee daañu la gëm loolu la ñuy wax sun borom nee na yonte yàlla Moussa kon dina tàllal loo xam ñaan yonent yàlla Moussa daal di tàllal loxaam ñaan yàlla nangu ñaan nga teggi bekkoor ba dindil leen nattu ya moo tax buur bi nee na fa lammaa ba nga xamante ne kachaf naa wuññi nañ ko ci sababu ñaanu Moussa anhum walif leen al azaba mbugal ba nekkoon seen kaw bekkoor ba deñ sun borom nee na est-ce que def nañu la ñu wax mu ni déedéet isan xaaruñu mu yàgg de am kon ci mbetteel hum ñoom yan kusu nañu firi wóllëre wa ne ko ci yaa man a njabar léegi da ngeen di gis ne xew-xew boobu bu amee kan mooy firawna na mooy ki woote woon ne maa alimtu lakum min ilahin gayri mooy xamuma ngeen ngeen am benn yàlla bu dul man maa alimtu xamaluma lakum ñeel leen min ilahin benn yàlla gayri ku dul man loolu la waxoon wala boog sax bu fekkee ne nee ngeen a yéey ndax Moussa mi ngi naan beneen yàlla am na mooy ana rabbukumul aala yàlla bu fi man manti nekkit man may yàlla bi féete kaw kooku mooy buur boobu léegi nag bu ñu gisee yoon yonent yàlla Moussa ca njabarkat ya mu gisoon na yatam wakat moddoon na soppali ko woon na jaan moddu yàlla yépp moddu yañ defoon ci xeeti njabar mu seen jaan yeeg yépp ba ñu sujjóota ne amana bi rabbi Haaruna wa Moussa jàngoon nañu ba mu pendre leen rey leen léegi lii xewaat bekkoor dikk Moussa ñëwaat ñaanaat affaire bi jeex te Firawna mi wooteeg yàlla mënu ko kon fa laa budda mu yëg ni chaise am mi ngi yëngatu léegi nag pour indiwaat nit ñi def leen a woo di waxtaan ak ñoom xam nga lu mu leen di wax moo tax war naa daa woona Firawna na nitam ñi pour fii qawmihi ca nitam ña xaala mu ni leen yaa qawmi yéen samaw nit xanaa ki doon wax alaysa li mulki misra la wax ki doon wax anaa ko rabbukumul aala ak ki doon wax ne maa alimtu lakum min ilahin gayri tey dafa mel ne néew néewu leen man maay buuru misra de mais dañ leen xanaa du man maay buuru misra pour déglu gaa ñi lan la ñuy wax alaysa li ndax daf maa ñeelul mulku misra nguuru misra égypte gépp misra du dëkk bi comme ni jàppee tey mooy capital bi kese misra moo nekkoon réew mi lépp ndax du maa ko moom ndax du maay buur bi ah ndax ñeelu ma mulku misra nguuru misra ah ñoom kat dañ naan ko waaw yow la ndax ku ni déet kat mu rey la ñoom ñëpp ñu ne waaw waaw mu ne wa haadihi l anhaaru yi la dex muy dexu niil bi ak yiñ ci génnee muy daw ndax tajri muy daw min taxti ci sama suufi pale ndax du loolu afala tubsiruna ndax da ngeen a gisul sama màgg ngaar sama sama daraja ñu ne ko ah aha kay aha kay mu ne waaw léegi yéen seen bët yi ngeen di ko xool waa jële ndax man damay moroomam ana man firawna mii xayrun maa gën am ana wala ndax du man maa gën min haza ci Moussa mi da bëggul tudd turam daf ko xeeb ne waa jile min haza ci waa jile ah ah fa mu teg mbir ya du foofu ndax maa ngi ko teg mi ngi toog taxaw ci kaw paleem militaire yaa ngi ko wër tabaarakallaahu mi ngi yore ay takk ay lami or takk ay chaîne or ndëpp li mu sol fa tabaarakallaahu lépp di wurus ah fa la ko teg mu ni leen ah min haza ci kii allazi ki nga xamante ni huwa moom mahinun ko doyee di la amul dara moom sax wala yakkaadu moom xawaawul sax yóbbiinu di mën a lee wax wax ju leer ndax xam ngeen ne yonent yàlla Moussa dafa doto moom ah ma taxoon rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli jooju moom su fekkoon ne li muy wax dëgg la ba may diir mbagg moo fa law laa ulqiya alayhi nee na am na jeneen yàlla mais yàlla jooju na ko takkal ay lab fa law laa ulqiya lu tee ñu jox alayhi ci moom bu fekkee wax na dëgg asaawiratun ay lam min zahabin ci or comme ni ma ko takkee jam u aswira aswira jam u siwaar wala boog su fekkee ni nee na dëgg la man am naa ay militaire man fu ma dem ñu ànd ak man moom ana na woo ay malaaka boog nee na yàlla am jooju am nay malaaka na malaaka yi di ko gunge moo tax aw jaa wala dikk la ma awoo ànd ak moom almalaikatu malaaka yi moo ko tarine di topp ci moom di ko lëkkaloog moom di topp ci moom di yashhaduna bi sidqi di seede ak dëggam sun borom nee na lii moo xew ki doon woote yàlla tey jii changé na débat bi pour xëcc xolu gaañi fa tabaarakallaahu suñ borom ne ah fastaxafa dafa téey looloo dafa téeyaloo téey téeyey téeyey dafa téeyey loo dafa téeyey loo xawmahu aw nitam ne xam ngeen téeyey ah ah yeneen toog ci keppaaru mag ñi dafa téeyey loo nit ñi fa ataauhu ñu topp ko moo yóbbu seen xel dañ naan naan seen yiw waaw waaw diw dafa téye yéey mooy xamul fu muy teg tànkam xel mi dafa dem njàqare la man tiitaange mën na ko waral njàqare la mën na ko waral leneen man na ko waral bokkul ak na ni toy waaw bokkul ak na ni toy awli fulaanu walihun mooy ku nani tooy la loolu njàqare moo koy waral hmm. yelihu yow lahu fa huwa walihun moo tax mu ne fastaxafa mu téyeyloo xawmahu aw nitam ña nee na fa ataahu tax ñu topp ko tax ñu topp ko ba mën a weddi Muusaa innahum naka ñoom kaanu nekk nañ xawmam di aw nit faasiqiina ñu génn topp topp ñu ndigalal yàlla suñ borom na ne ma gis nga ba ma mbir ma soofee falamma ba nga xamante ne asafuuna merloo nañu ma man yàlla intaqam naa mbugal naa minhum ci ñoom fa agraqnaahum ma labal leen ajmaina mboole seen labal leen fa jaalnaahum ma def leen salafan salaf jam u salif ah salaf jam u bi maanaa saalif yi ne ñuy way jiitu ci ñu ñuy waaroo ca ñoom wa masala ñuy melokaan doy sëkk wu ñuy aw lépp wu ñuy sagg lil axirina ñi mujjee ñëw lil mutaaxirina ñuy leen di tudd di waaroo ca ñoom léegi nag ñoo ngi bëgg jàng beneen laaya boo xam ne bi innakum wa ma taabuduuna min duni illahi xasabu xasabu jahannama antum laha waaridun bi yàlla wàcce ne yéen ak li ngeen di jaam yeneen nekk mattum safara yéen ñëpp safara ngeen jëm bi laaya jooju wàccee ah fa tabarakallahu ñoom de waa yéeféeri màkk yi dajaloo ci seenum pénc di seetantal waxi alquran ji ñoom ñu ne kat muhammad kat nee na ñun ak sunu xërëm yi yàlla yi ñu ne ko hubal ak laata ak uzza ak manaata ak xërëm yépp mattum safara lañu léegi nag am ku ñu wax abdullahi ibnu abdullahi ibnu zibaara abdullahi ibnu azibaara mujjoon na dugg ci diine gannaaw fatt mag daal ne man de da ngeen di may may ma mën naa cee yey muhammad ci wax ji mu wax daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko innakum wa ma taabuduuna min dunillahi xasabu jahannama antum laha waariduuna nga wax de ne ko waaw waaw ak lu ngeen di jaamu ne waaw léegi dañu lay laaj ndax amul ñuy jaamu Isa ndax saalisu salaasati ak Aysa doomu yàlla la kon nasaraan yi am na ñuy jaamu Aysa mu ne waaw te yow nee nga Isa yonent bi yàlla la mu ne ko waaw mu ne ko am na ñuy jaamu Uzayr aw Uzayr ibnullah doomu yàlla la te Uzayr di nit ku baax ah fa tabaarakallaahu mu ne ko waaw mu ne ko léegi ñooñu itam xanaa ñun suñu xërëm yii buñ dee dugg safara mën nañ faa fekk Isa ak Uzayr kooku amuñu problème ah mu nekk lu jaxasoo waaw Seydina Ali ne leen yéen da a dof innakum wa ma taabuduna waxul man te maa lu amul xel a tax <laughs> ba mu ne maa la yonte yàlla mu Isa génn ci keneen génn ah, suñ borom ne inna alladina sabaqat lahum min alxusna ulaika anha mubaaduna laa yasmauna xasisaha te isa ak zubayr ca ñooñe la ñu bokk moo tax mu ni hmm, wala ma duriba ba defeef ba defeef ibnu maryama doomu maryama ji di yonte yàlla isa masalan ab misaal ab melokaan woo xamante ne dañ koy misaalee pour mën a weddi isa ba nga xamante ne xawmuka saw nit ñu bokkaleeg yàlla ñii yasit duuna ñi ngi saboote di reetaan di kekkatu di yëjji min hu ca léebu woowee ndax innakum wa ma taabuduna min dula xasabu jahannam ndax yonte yàlla Moussa doy na sëkk kéemaan waqaalu ñu naan moo a aalihatuna ndax suñu yàlla yi waaye xayrun moo gën am huwa wala isa ndax suñu yàlla yi bu fekkee ñooy dem safara ah kon isa day dem safara est-ce que sunu yàlla yi kon gënul isa comme ñoom ñooy bokk safara ga suñ borom ne na maa darabuhu sadduñu misaal moomee saddaluñu la ko lakk ñeen la illaa jadala ngir dàgge ak yow kese bal li dëgg tey dëgg ñoom qawmun aw nit lañ ñoo xamante ne xase mun a way taroo ju war way tar ju xuloo lañu shadidul xusuma suñ borom nee na in huwa déet isa isa illaa abdun lu dul ab jaam jaam la woon isa du sama doom du sama dara abdun ab jaam la woon bopp an am naa xéewale woon nañu alayhi ci moom jox ko nubuwa wa jaalnaahu ñu def ko masalan muy kéemaan li bani israila ñiit bi ñeel ci ñeel waa bani israil ndax mu nekk lan mu nekk doom joo xam ne juddu na te amul baay waaw loolu kéemaan la bu rëy a rëy ci waa bani Israël suñ borom nee na walaw nashaa bu ñu sooboon la jaal naa ñu defat minkum wottee leen malaaikatan ay malaaka fil ard ci suuf na ñu wuutu leen ma alak leen andi ay malaaka ñu nekk fi wa innahu wér nekk wér ne moom yonte la isa la ilmun mandarga la li saati ñeel jege ñeg tukkiteel àdduna hmm? ak falaa tamtarunna rek bu leen sikki sàkk bihaa ci dikku saa hmm, falaa tamtarunna falaa tamtarunanna jazmu tax hmm, buur bi nee na ak iltiqaa u saakinayni falaa tamtarunna wa ya rasulallah wax leen ne leen ittabiuni topp leen ma ciy wéetal yàlla moom la yont yàlla isa waxoon de ne leen haza lii ma leen sant muy wéetal yàlla siraatun mooy aw yoon mustaqimun wu jub wu ni coow àgg fa ngërëmal yàlla rek wala yasuddannakum bu mu leen dëddaloo walif diine yàlla ji acheytaanu cheytaane ndax moom kat innahu naka cheytaane lakum ñeen leen adduwun ab noonu la lakum ñeen leen mu biirun bu dee aji biir jig noonee yàlla nee na xamal naa leen ne mooy seenum noonu waaye wala maa ba nga xamante ne jaa a andi na isa yonte yàlla isa bil bayinaati kéemaan yi la yu leer naññi andi sharia bu leer naññi xaala mu ni leen ah qad jitukum yéen sama mbooloo andil naa leen bil xikmati nubuwa bil xikmati téere bil xikmati sharia wala ubayina ngir na ma biral leeral faram-fàcceel lakum ñeen leen baxda lazi la nga xamante ni taxtalifuuna yéen a ngay wuute fii ca moom ci mbiri attey tawreet ak seen mbiri diine kon nag yesaay wax de fattaqullaa ragal leen yàlla wa atiuni topp leen ma ci ñu ànd wéetal yàlla lii la yoon jàll isa wax ma nga naan leen inna allaha wér nekk ni yàlla huwa moom yàlla moomee rabbi mooy sama borom wa rabbukum te mooy seen borom faabudu rikk jaamu leen ko faabudu rikk wéetal leen ko haza lii ma leen sant siraatun mooy aw yoon mustaqimun wu ni coow àgg ca ngërëmal yàlla sun borom nee na lii la yoon jàll isa wax hmm. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سنبر من ذلك عيسى بن مريم وأي قول الحق ولا قول الحق الذي فيه يمترون ndax maa kaana lillaahi an yattaxida min waladin subhaanahu idaa qadaa amran fa innamaa yaquulu kun fayakun lan leen wax wa anna allaha rabbi wa rabbukum mi ngi nii faabuduuni hada siratu mustaqim waaye faxtalafa lazar min baynihim fa waylun liladina kafaru min mashhadi yawmin azim asmi bihim wa absir yawma yaatunana lakin zalimuna yawma fi dalalin mubin moo tax mu ne faxtalafa al-ahzaab kuréel yi daal di wuute min baynam seen diggante ci mbiri Isa ñii a Isa yàlla la yàlla ne ñoo ñu ko wax yéeféer lañu ñii ne Isa doomu yàlla la yàlla nekk ña ko wax yéeféer lañu ñii ne isa salisu salaasa sun boroom ne ñoom it yéeféer lañu kon nag fa waylun joote lu mu yaakaar ci yërmaane mu tas li la dina ñan ña nga xamante ne zalamu yéeféeru nañu weddi nañu yàlla tooñ nañu yàlla ca la ñuy wax ci isa naan doomu yàlla la wala naan yàlla la wala naan salisu salaasa la ah mbug min azabin ci mbugal min azabi yamin ci mbugalug bis alimin gu ñu mettital ñoom hal yanzuruuna hal yanzuruuna hal yanzuruuna illa saata an taatiyam baxatatan wa hum laa yashcuruuna su ko defee ñu yem foofu rek ci hal yanzuruuna ji fa tabaarakallaahu ñoo ngi jéggalu ci yeex gi tey waaye itam lépp loo xam ne jaar na yoon ci li ñu wax yàlla yàlla nangul ñu ko